wa taabii taabiin wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi din wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokk jullit yi soppe yi xarit yi seen émission maa bëgg rasul sallallahu alayhi wa sallam bi leen seen site en ligne fkr 92 point com tànnal ngeen ànd kook seen soppe seen xarit bu leen yéene yiw lool lool lool lool muy Abdoulahi mbaay di imam fondation Kër Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ñu ànd ko ak sunu caméraman bu baax bi Omar Rasoul mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaar ñu ngi leen di ndokkeel tabarakallahu ñu ànd ko nag ak ki nga xam ne moom yitteem yëpp bëgg-bëggam yëpp yéenaam yëpp mooy fondation Kër Rasoul xeet bi gis ci seen bopp fondation Kër Rassoul gis seen bopp ci xeet bi gis boppam ci xeet bi kooku mooy kan mooy Mouhamad Abdallah eh, tabarakallahu ngeen xam ko dégg nga ci Masek Thiam mu am lool sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne ci la dund ci lay dox ci lay wax ci la léppam nekk macha allahu kon nag ñu bokk ko ak yéen moo tax nag bokk yi ñu ngi leen di bége ñu ngi leen di ziyaar di leen ndokkeel ci weer wu tedd wu mag wii xam ngeen ne Eh, dañuy wax na li kulli makaanin maqaal wa li kulli xawmin xaal lenn lu ne rek jamono bu ne rek dafa am lu muy laaj jamono bii nag li mu laaj mooy ramadaan moo agsi moom lañ doon seenu moo ñëw ñu ngi ci biir di liggéey ku romb sànc bi danga xam ne dégg nga sànc bi yëppam doy na ndax gaañaa ngi liggéey liggéey bu mu ngi daw fi mu ne xiil yu metti tabaarakallaahu ñu ngi ci digg liggéey bi kon nag eh, dégg Eh, bu kenn toqi bu kenn yoqi te ñu jël lépp nag jébbal borom bi subhanahu wa taala jébbal ko liggéey bi wan ko ne ko moo ko moom moo ko moom li mu ñu ci cëral nag mooy lan mooy ngërëmam ñun moom rek la ñu wut ku baax ki sallallahu alayhi wa sallam ci yoonu taayifam woowu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yoonu taayifam wu metti woowu nga xam ne mi ngi ànd ak benn xal bu ñax saydu ibnu xaarisa ndeysaan saydun la àndal ci yoon boobu bi mu demee Taïf fekk fa ay najaayam ñu mettital ko fa mettit yu metti boole ko xaj yi xaj yi matt ko ñu dóor ko ay xeer ba mu tëdd làcc Seydou nañ ci wetam rek toog di jooy xale la yaram bépp dagg ba mu na làcc ñu ne dee na ñu bàyyi ko fa mu tëdd ñu dem seen yoon mu tëdd fa sallallahu alayhi wa sallam tëdd fa tëdd fa Seydou toog rek di jooy ba péex mi upp ko ci guddi gi mu ximmaliku jóg toog jibril na dër naka sa borom da nee na mi ngi lay nuyu subhaanahu wa taala nee na daal jox na ndigal dégg nga ñaari xeer yi wër taayif jox na leen digal ndigal bànk ci sa loxo soo neen acca ñi daal di daje toj taayif raaf ñi ci ne ñëpp ala ko ah yonent bi jooy na man day taayif yéenewuma leen loolu ñoom dey dañ maa xamul dama leen indil teraanga te xamuñu ko léegi nag man de li ma bëgg mooy ñoom buñ ma gëmut it ndax ñàkk maa xam yàlla yow borom bi mën ngaa indi ci seen gannaaw ay njaboot yoo xam ne danañ xam man may kan loolu nag njàngale mu am solo la njàngale mu am solo la dégg nga jibril na ko nag waaw léegi nag sa tànk sa yaram wu dagg wii sa deret ji sotteeku sa niñ la yàqee ni gaañ la léegi nag loo ci xam mu ne ngërëmam rek laay wut fa in radiya fala ubali dégg nga ko ngërëmam rek lay wut moo tax gis nga borom bi nag wala soo fa yu'tika rabbuka fa tarda man nga bëgg sama ngërëm may naa la ko may naa la sama ngërëm fii ak fële ba noppi nag danaa la jox ba nga ne doy doy na te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na laa arda wa wahidun min ummati fi naar du ma wax mukk yàlla kontaan naa doy na te kenn ci sama xeet nekk biir jahannam c'est loolu kon yàlla nañu ci yàlla musal eh, nag boole na ci xeetam boole nañu ci santaane bi ñëw na ñi ngi ciy góorgóorlu luñ man lu ci manqué borom bi mottaleen ñu Seydi Hadji Malick déggoo lim wax radiallahu taala anhu daf ne ixfir li ummatihi benn warham bi ummatihi ñaar wastur ñett waaye bi mu ñeenteelee nag mooy mbir mi waj boran ha rabbi yallaahu jabru waj boran ha mooy yàlla xeet bi li nga leen sant ñu def ko te ni nga ko waxee defeewuñ ko ko matul ni nga ko waxee defee ko ko sellul ni nga ko waxee defee ko ko des na léegi nag mottalil leen mottalil leen ko jàngal leen ko ba mu baax nga def ko ba ni nga ko bëggee indi ko ci sa kanam nangu ko fulande ko loolu Seydi Aj Malick ñaan te avant muy wax jabru boobu bi mu koy ñaan dafa wax ne yàlla jéggalal xeetu rasulillahi ñépp yàlla yërëmal xeetu rasulaay ñépp yàlla suturaalal muural sa mbalaanum sutura mi xeetu rasulullaay wépp ba noppi na wal bit nag na li ngi leen sant ñu def ko mu am ay rëq-rëq jubbanti ko mottali ko nangul ko sa bopp xoolal ki fi mu taxaw ci xeet bi ak lim leen yéene xoolal ki fi mu taxaw ci xeet bi ci jàmm yàlla yépp lim leen yéene lii kenn musu ko gis xam nga lu muy daw dafa am lu ko boromam déy Seydi Haj Malick dafa am lu ko boromam déy bi bi jaahi rasulillahi sallallahu ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la muy daw borom bi dafa ne maa kaana li basharin an yutiya llahul kitaaba wal hukma summa qaala linnaasi kuunu ibaadan lii min duuni walaakin kuunu rabbaaniyyiina bimaa kuntum ta'lamuuna al kitaaba wa bimaa kuntum tadrusuun loolu lay daw parce que bi daf ne ah, mayuma benn nit waxul maa kaana li nabiyin waxul loolu maa kaana li li li aalimin waxul loolu maa kaana li murshidin waxul loolu maa kaana li rasulin waxul loolu waxul loolu maa kaana li basharin la wax ku am bopp ami loxo am tànk dugg nga amul benn mbindéef yëllul jaaduwul rafetul warul man nekk ci benn mbindéef ma xëy jox ko teraanga mu xuumtoo teraanga ba nit ñi ne kër kër na këpp mu ñëw mu ne man la maa yàlla man la maamoom moom yëf man la dégg nga sama njàmbaar la nekk leen samay jaam nit ñi nekk ay jaamam di dukki dukki mu di leen baam tukkali tukkali borom bi ne ko ku ci def danaa la duma danaa dajeek yow xam nga bu nit ñi ne kër kër na këpp xam lu wax day wax ne koonoo rabbaani yin moo tax Seydi Hadj Malick radiyallahu taala anu ñaan-ñaan gu rëy googu ànd koog jaam ñi koono rabbaniyin bi ma kuntum taalamoona alkitaaba bi ma kuntum tadrusoon seetal loolu loolu di lu am solo xoolal loolu liggéeykat yëpp jaamukati yàlla yëpp ñi sell ñëpp ñi yàlla baaxe ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp loolu lañ bëgg dañu jël yiw bi mbaax mi teddanga bi lépp juug ko boole ci ñëpp xoolal fondation Kër Rasul ku sopp yonent bi yaa ngi ci biir ku sopp na Mohamed yaa ngi ci biir ñu fexe nag ñëpp nag di ak maas ànd di liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wa salaam lépp di Seydina Mohamed kër yi moo ko moom moo moom oto yi moo moom lépp ba ci caméra yi gis nga xale bi caméra ni Omar Rasoul la tudd Omar Rasoul lépp yonent moom lépp yonent bee ko moom su ko defee nag kon Eh, loolu alhamdulilah rabbil alamin di lu am solo su ko defee nag ñu bàyyi ko xel sóoraale ko yàlla ñu ci yàlla gën a doolee dimbale eh, tabarakallahu ngërëm loolu nag nga xam ne bu ñu wooree ba koor gi jeex ñu am ko xam nga lu borom bi wax yaa ayyuha lazina amanu ñu ne waaw mun ne kutiba alaykumu siyaamu ñu ne musiba am na ah mu ne loolu ko man mu ne kama kutiba ala lazina min qablikum comme ni nga xam ne ñi leen jiitu noonu laa ko farataalee ci ñoom ñu ah. kon nag am na ñu ko defoon kon dañ ko war a man waaye déglul nag mu teg ci sunu kanam loo xam ne dana jar xare def ci sa bakkan mooy la laalakum tattaquun boo waree koor gi ba mu jeex Omar am nga taqwallah am nga a maqaama taqwallah te inna taqiya najibu ki ragal yàlla tedd na adduna tedd àllaaxira te taqwallah moom rek la wut wattaqullaha wattaqullaha ittaqullaha du jeex ci biir alquranul karim wattaqullaha xaqa tuqaati mi ngi fi wattaqullaha mastataatum mi ngi fi taqwallahi moom lañ soxla te boo wooree weer yu ba mu jeex am nga garaatu taqwa ñu tegal la ne loolu jar na lu ne ba noppi man ayaaman maadoo daat ay fan la rek bariwul ayaaman ay bés la maadoo daat yu ñu lim benn ñaar ñett ba mu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent juróom-ñeent wala fanweeri fan loolu bariwul mu indiwaat nag te latuuf bu gën woyof pour war ngeen ko man mooy euh, euh, euh, ne ayaman maadoodaat mu ne fa man kaana minkum maridan aw ala safarin ku feebar may naa la may naa la nga dallu lekkal naan faju ba wér fay li la paase woon dégg nga wa man kaana minkum aw ala safarin fa iddatu min ayamin uxar su fekkee da nga ne ci voyage voyage bi metti dégg nga metti lekkal ci voyage bi naanal lekkal ba suur naanal ba màndi ci voyage bi soo dellusee ba dallu ñibbisi ah mbaa nga dallu ca voyage ba nga nga nga fay bés bés yi nga xam ne moom nga leboon ci yoon wi mbaa nga leboon ko ci feebar bi su ko defee loolu lu woyof la waaye nag taqwalaa bi nga ciy am moo lay wan na la mbooleem luy teraanga mi ngi ci kon su ko defee alhamdulilahi rabbil alamin weer waa ngoog liggéey baa ngoog jaamu yàlla gaa ngoog teraanga bàngoog te kenn moom ko du moom baññal ko ba dañ ne sahru ummati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mooy weeru xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ko moom nag ah gannaaw meneen jiy ñun ñoo ko moom acca na ñëpp taxaw loo moom kay da nga koy def jëfi koo xam ne yaa ko moom kon fondation bàngoog weer waa ngoog soppe yaa ngoog muhammad abdullahi ngoog omar rasul ngoog seen soppe seen xarit moom ngeen àndaloon ci seen émission maa bëgg rasul ci seen site fkr 92 point com asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل